ko rek la jël yàtt ko li ci nekk yëpp mu génne ko ne yi ci yi nga xam ne mooy yi woykat yi doon def yëpp yooyu man génn naa ci moo tax wax loo gëmuñ moom du ko def li muy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li ne ci xolam lakka lisaani maal wala udaani ka shuhara mu ne ko man sama làmmiñ muy li ma lay wax ci lu rafet lépp maa ngi la koy adressé waaye sama xolit mi ngi ciy àndaale wala udaani ka shuhara ni woykat yi doon def bu jëkk nag di wax seen i géer loo xam ne gëmuñu ko ak di ko àggal ku ñu àggul loolu nekkuma foofu wala daa nii ko chonra xeer woowu la génne moo tax euh, moom ay wooyam doy waar lool mu mel ni nag xasida yi suñu ko dee xool dafay nekk ñaari pàcc benn pàcc bi mooy boo xam ne mooy téere yi xam-xam yi bi ci des mooy téere yi xasida yi mooy sikar yeeg salawaatu ala nabi yu mel noonu hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi ma salaati wa bil madhi benn xabu yu njëkk wi mooy téere yi xam-xam yi hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi beneen pàcc bi mooy téere yi xam yi bi aqdi wa tasawufi wal wa yaali bi zikri ma salaati zikru ak salaat ak madda loolu mooy xasida yi lu ci nekk nag am na ay diiwaan yoo xam ne sëñ Abdou Lahad dajale woon na ko nañu ñëpp xam nañ lu mel noonu mu mel ni pàcc bu njëkk bi moom dañ koy jàng mooy téere yi xam-xam yi te sawudu suxaar jawhar nafis yu mel noonu pàcc ñaareel bi nag laajuwul jàng kooku moom dangay jàng di ko yëg ci sa xol moo tax su may wax ñenn ñi naan leen téere yi xasaay gi jërul saraa ndax mawaahib bi ku koy jàng jàngul ngir xam maanaam yi wante daf koy jàng ngir li ci nekk ci ay kii dugg ci xolam yu mat di xàmmee la pàcc bu bu ñaareel boobu ci la moom sëriñ bi di waxe ne nee na suul na ci lu bari muy ci ci salawaat yeeg ak taxadus bi niam ak yi ko ko yàlla may na benn bis wax na ne li ma ci suul de moo ëpp li feeñ waaye nag li ci li ci li ci li ma gisul la ci bari loo xam ne su su génnoon du xaj ci bopp nit ñenn ñi duñ ko gëm te buñ ko weddee ak moo tax ma ma suul ko nga xam ne fii ne li ñuy gis nii li li ñuy gisul moo ëpp li ñuy gis xasida gi mu njëkk a taalif sëñ Mamour Anta Sali la ci doon woy muy ayaa man bangal ahkaami yaa xawsa dillii li ayaa xarmu yaa naamuusu yaa xutba zal jiili xam ne kon moom topp way jur yàgg na ci lu ci moom lool li muy ni ci agronome la tàmbali wax na ne lépp loo xam ne lu am la daf ko daan jël di ko def di ko jox àddiya nee waaye fu ma ko joxee dara ñaanal na ma waaye nee na li ma li ma ñaanal lépp na gis naa ko hmm. mel ni <clears throat> euh, am na ci xasida yoo xam ne daf ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am yoo xam ne da ciy ñaan am yoo xam ne da ciy jéggulu ak yu bare bari daal waaye daal suñ ko doon tënk ñun li ñu koy jëfandikoo du génn ñeent yi wala juróom yi am na ci ñoo xam ne dañ koy jàng di ko durus muy wax durus nga xam ne da ngay jël xasida jàng moom jeex nga jël geneen mën nga ko bañ a wax ca kaw sax loolu mooy durus am ci ñoo xam ne dañ koy jàng yëkkati muy ñaareelu xaaj bi mooy ñu doon jàng léegi ñooñu itam am na ñuy jàng mbooloo am na ñuy jàng kenn am ci ñoo xam ne dañ koy bind am ci ñoo xam ne euh, dañ koy euh, yor di ko denc noonu nga xam ne di ko def boole ci say bagage lu ci nekk nag sëñ bi digle woon na ko ñii jàng yëkkati daanañ jàngal sëñ bi ay kuréel am ci ñoo xam ne njàngu kenn lañ daan jàng waaye njàngu kuréel mi jamono booba sëñ ibre Bouba Fall yaakaar naa ne ñu ko jiitu ci sëñ bi bariwul moom moo ko daan jàngal njàngum yëkkati sëñ ma Masamba moo ko indiwul ci sëñ bi sëñ Masamba ay tournée yu mu doon def ci dëkk yi boor yi yi fii la ko jële yaakaar naa dëkkam soriwul wet yi nee na sëñ Masamba dama nee na dama ko dégg muy jàng baat bi neex lool nee ma ne kii dafa muy bu ko ci sëñ bi nee na ma téye ko booba wolofal sëñ ab sëriñam la daan jàng nee na ma ma ànd ak moom ci ngan bi nee na nga xam ne saa yu ma xëyee daal jox ko dara ngir mu gën a mën a toog nee na waaye bi ma ñëwee ba del si njaareem nag mu jàng ci kees gi nee na bi ko sëñ bi déggee daf ko woolu mu ñëw mu ne ko li nga doon jàng lan la mu ne ko xasida yi ab sëriñam la mu ne ko yow bi la yàlla bind sama xasida yi moo tax mu bind la nag foofu mat at muy jàng bi at mi matee mu ne kon xam naa dañ laa war a wutal soxna mu ne ko bàyyi naa sama kër ñaari soxna mu ne ko nañ nañ nañ nañ ko indi noonu la nekkee foofu moom daaj yu bari moo ko génne ci ci moom la jaare sëñ bi daf koy wax ne ko demal kees sàngam bu demee kees sàngam taxaw di déglu am riir nag lay dégg moo xam ne xamuñu lu mu doon boobu riir mi nag ci lay jëlee air yooyu noonu bu ko defee ci lay jàng gis bu wala mawaahi bu wala yu mel noonu bu ko defee mm, sëñ euh, Mayib Guèye boobu mi ngi ndaam ndax daan ñëw léeg-léeg di ànd ak daam ci sëñ sëñ sëñ daam Abdourahmane lu ci sëñ léegi nag sëñ Ibra bu moom bu génnee daaj boobu nga xam ne moom moom la capté ci foofu di ko jàngal sëñ bi sëñ bi da koy déglu am na boo xam day jàng jës ba agsi ci ni'man nabi wa rasul sëñ bi nee na def ne bërit ne ni'man nabi warul loolu ku ko war a wax <laughs> nee na ba mujj nee na suñu borom nee na ñu ne ko xoolal sa bopp nee na mu doog xam ne am ko wax nga xam ne noonu la xasida yi da ko daan déglu bu ñuy jàng da koy déglu di ko déglu am na boo koo xam ne day jàng ba mu yàgg mawaahibu bu njëkk ba bokkul ak bii moom la doon jàng mu ko wax nuzhatul haashiq ba yàgg am bayit mu wax sëñ bi gàgganti ko daal di yebal ndaw ne ko tungoom ko mu tungoom ko mu ne xasida koy jàng dañ koy tungoom nga xam ne dañ dafa dañ ko tungoom ba mu jàng ba xasida gi jeex waaju doo ko wàcc sëñ Ibra bu Fall am na benn bis muy jàngal sëñ bi ba mujj sëñ bi jékki-jékki rek moom itam mel ni loolu da ko dikkal mu ne ndaw li demal nga génn ci baraag bi li ci nekk lépp jox ko ñuy génne di roñ di ko jox di ko jox ba baraag bi jeex mu ne nañ tàjji baraag bi yóbbul ko waaw loolu daf ko daan def am na benn sëtam dama xamoon naa ko ay kër sëñ Saliou laa ko xamee woon moom ma daan nett lu bari ci moom nee na ma sama bàyyi nee na ma jàngal na sëñ bi ba mu jox ma ñamu àjjana mooy sëñ Ibrahima boobu Fall moom kon nga xam ne njàng yékkati ci laa nekk rek lu am solo la lu lu lu am cëslaay la daaj yoo xam ne ci yu mel noonu la jóge xam nga daaj yu yu yu sacré la yu mat di garde la jàngkat yi war nañu koy bàyyi xel bu baax léegi nag sëñ Ibra boobu moomu bu jàngee daaj boobu sëñ ndaam ñëw euh, dégg daaj bi jël ko bu demaatee ndaam nag daal di koy jàng foofa ñu ne sëñ ndaam sëñ kii sëñ sëñ mayib la wax na maa jub sëñ mayib indi na daaj bu bees noonu la daan def bu mujj benn bis nag sëñ mayib ñëw ci sëñ bi njaare mi ànd ak sëñ ndaam ñëw ci sëñ bi sëñ bi di jàngalu xasida ama daksasin xam nga fi ne booba njàng mi kenn du jekki-jekki jàng xasida fi moom mooy jekki-jekki na nañ jàng nàngam kenn du jekki-jekki jàng xasida ko xam yaa koy tànnal sa bopp nañ jàng xasida sàngam tënk biir lay nañ jàng man jotti xëy rasul wala nañ jàng nàngam booba nag muy laaj xasida ama dak sa sin ku ko mokkal euh, booba mag ñi kenn mokkalu ko ci suy fekk sëñ daam mokkal na ko mu jug yëkkati ko sëñ sëñ mayib damay jub rek sëñ mayib yëkkati ko bi mu ko yëkkatee yoon woowu ñu dellu ndam mook mook sëñ ndam yàlla dogal ñu ñëwaat weneen yoon sëñ bi laajaat xasida ak Ahmad ak sasin ba tey même noonu mu mokkal ko yëkkati sëñ ndam ne sëñ kon moom dañ ko fee far bàyyi mu ne waaw moo gën de <laughs> loola fa bàyyi sëñ Mbaye na mujj moom moom moo jiite jànkati sëñ Masamba yi nga xam ne taarix xam noonu la demee fii la faatoo ci Thiès suñu bi nett ma fii ci hôpitalu kii bi nee na fi na dafay ñëw di seet si benn euh, ci hôpital bi nee na ñu am na magum murid mu ne fii de ci wet gi ci xuma ban na ma ñëw fekk muy sukuraat nga xam ne nee na ci kanamam la faatoo waaw kooku kooku loolu mooy mooy mooy njàngum yëkkati mi muy lu am solo euh, njàngum yellu mi itam lu am solo la lu mat di bàyyi xel la ndax moom itam euh, daanaka sax ci ngay gën a mën a jànge lu bare bare bare waaw waaye moom itam soo ko dee def li muy wax ne day fóot xol di ko dee def di ko sellal di wéet di ko def di ko jox gëddaam mën nga dem ba yàlla wuññi la yu baree baree bare ka di ko gis mën ngaa dem ba àgg ci mustawa bu kawe waaye nag su boobaa nga nga nga ngay nëbb li ngay gis waaw di nëbb li ngay yëkk ni nga xamee ne ku am compte banque doo nangu kenn xam ci dara kooku itam loolu yooyu yooyu mat di bàyyi xel gis nga sëñ bi fi àgg ci yàlla ak may yi ko yàlla may waaye nanguwul kenn xamal ko dara ci ci ci ci yenn yi nga xam ne mooy ay yëfam xafiisu habli xismatan min kashfi ma wajaba sitruhu liya fama yow yow yàlla mi nga xam ne yaay wattoo may musal ma ci loo xam ne war naa ko denc ci ay mbóot ma di ko génn ci sama gémmiñ nee na ñoŋalal ma sax sama gémmiñ ba du ma tudd loo xam ne lu ma war a nëbb la nga loolu lu lu lu kiimaane la mu mel ni moom xasida euh, mën naa yóbbu nit fu sori mën naa ubbil nit yi xéewal yu bare bare yaquudu li manaafiul buldaani manaafial buldaani xotti bila azan min al abdaani sama xas yi day dafa may xëccal yi réew yépp ñuy sotti ku di agsi ci man mu mel ni durus googu soo ko dee def man nga mokkal lu bari ci xasida yi waaye su boobaa itam nga sante ko yàlla rek xam na ne mokkal moom lu lu lu yàlla may ndët la sëñ Abdou Lahad daf daan wax ne murid di xanaa lu mu sàggan sàggan war a mokkal junniy xasaay junniy bayit <laughs> junniy bayit gën jaa néew xanaa dana mokkal junniy bayit dafa am genn uh, kilifa goo xam ne xam naa damay bañ a tudd tur wi waaye moom ñi koy xam nañ ko nee na dafa am ci koo xam ne dafa doon ci jànkati xasida yi la bokk nee na mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko waaw diw mun a bàyyi sa cëpp-cëpp ji ngay def yow suuf si nga xam ne yàllaa ko bind mi ngi ragal yàlla ba ñëpp dox ci kawam ne mu ne degg yow ngay cëpp cëppi rek waaye jëne tekk mu yàgg mu ne ko ah man lu tax duma cëpp cëppi sëñ bi man ma mokkal junni bayit ci xasida yi sëñ bi duma ma cëpp cëppi góor gi ci boppam daa jug moom it di fecc ànd ak moom bañ bañ daanu ci sàkket bi nga xam ne loolu kon taw feex la ju rëy rëy muy mokkal yàlla may la xelum nga mën a mokkal ay xasaay loolu ak cant la euh, mbind mi itam euh, euh, lu mat fonk la ndax sëñ bi dafa am ay bindkat ay bindkat yoo xam ne ñoo ko doon bindal nga xam ne danga ci tudd sëñ Modou Lamine Guèye jëm mooy nga ci tudd sëñ Amsatu Jaxate nga ci tudd sëñ Moussa Alima Guèye ak ñeneen ñu bari waaye moom mbind mi ni mu ko daan yàkkamtee sëñ Mat Lamin Gay jëmooy am na benn bis mu di ko bindloo ak xasida mu wànneen sëñ bi di ko soññ rek xam nga booba ni muy ni na fu mu ko soññ mu ne ko wànneen ma mu ko ba mu ñëw mu ne ko neel wànneen wi bàyyil ta bati taalibe jàmbur mu wax ko ñett yoon mu ne ko demal nga bind ko nee na bi ma demee daa mel ni wànneen wi mosuma wànneen bind bind àggale mbind mi suñu am satu jaxate xasida ak Muhammad Rasulullaahi gim tënkee Muhammad Rasulullaahi ba ci fi saar bi jeexe gànnaar la ko defe moom la ko doon binduloo loo moo ko njëkk a bind ñu ngi ko joxee ne ko suba laa ko soxla moom de mbirum da daan jàmp mu ne ko ñu ah, ngi ko xoolee ne ko ni ma ko bëggee dëgg dëgg ni mbàkkee dana mat ñaari fan ba ñetti fan mu ne ko waa baax na bi mu ko bindee ba mu àgg mu indil ko ko mu xool ko sant ko lool teg ko ci ñaari feggu wékk ko ci kaw tegit gi newoon ci kawam daal di ne ñokket ànd ak moom nee na dem ba ci désert bi booba mi ngi Mauritanie mu ne ko waxal li nga bëgg léegi léegi yàlla defal la ko léegi léegi mbind <laughs> rek lay wax ni mu amee solo ak ak liñ ci daan am ñoom ci sëñ bi nee na ma wax ko ñett ñett yooyu nag daw ko nogoo leeral sëñ Saalihu mas na maa gis ci gone yi ñëw di ko yut ay mbind mu mbind am mbind plastifié ko bi mu ñëwee woon ko ci guddi gi dafa gis mu taal làmp bi di ko xool ba mu yàgg mu ne man de ñii lii ñi ko man dama leen ñee lool waaw lii ñi ko man dama leen a ñee lool muy mbind xesaay bi te moom xam nga ne ku ne xam na ne li mu bind kenn amul toll donc yëpp moo leen daan bindal li ñuy jàng ba fii ne nii mag mu ci moo ci gis ci ñuy tërbiyewu bu njëkk ci moom am na mbindum loxoom kenn ku nekk la nga daan mokkal moo la ko daan bindal loolu benn bis am na daayira bu bu ñëw yut ko ay xasida mooy mbind téere sasu wi keroog mu sant leen lool ne leen nag lii maa ko daan bindal sama bopp waaye benn bis bi sëñ Abdou Lahad indee machine mool bi ma ne ko nañ ma ci moolal lu dongo yi di jàng nee na mu ne ma ñaata nga ci soxla nee na ma ne ko ah, bu mu ëpp bu mu yées daal mu ne waaye kon dinaa la ci moolal junni waaye nag da nga dem ba soxla ci juróomi junni la keroog bi daayira boobu Italie lañ jóge maa ngi fàttali ko bi ñëwee juróomi junni téere lañ ko jox nga xam ne ci ci at ci at yu mujj yi juróomi junniy téere la ko suñu Abdoulaye waxee woon rek ne la ko defee ba tey loolu rek mooy mbind ci ci ci ci ci ci kii bi la bokk ci liy ñongal xasida ci la bokk moom xasida goo gis fi ne nii bi ko moom moo ko njëkk bind ci loxoom kon loolu di wane am solo mbind moom daawul dicté kenn lépp mbindum loxoom la xasida koo gis rek moom moo ko bindal loxoom ba noppi keneen doo ko sotti sëñ Masamba doo ko sotti wala sëñ Mor Lamine ngay jëm mooy wala mel noonu loolu li wane ba tey solo mbind waaw nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa la daan binduloo nga xam ne am nga loo loo ko loo loo xam ne bindal ko ci ay kaamil wala ci ay ay mbind mbind mi itam couleur yi couleur yi ni ko daan defee nga xam ne sëñ Mouhamadul Mamoun Niang nettali na ma nee na ma euh, asmaa ahli euh, sëñ bi bindee couleur yi couleur yi yi mu ko bindee da nga ci xàmmee turi ñu nekkoon ahlu badar ñi bokk ci awsu ak ñi bokk ci xasraj nee na ci couleur yi nga koy xamee ñi bokk ci awsu am na couleur bu mu koy bind ñi bokk ci xasraj am na couleur bu koy bindee ñi nga xam ne ñoo ca am na couleur bu koy bindee ñi nga xam ne itam dellusiwaat nañ am na couleur bu mu koy bind nga xam ne couleur ni muy ni muy ni muy ni muy génnee ni muy ni muy waxee waaw mu mel ni. kon jël gi di ko denc itam lu am solo la moom xasida yi loolu moom kii mënta jàng nga xam ne mënu ko jàng yor ko di ko denc lu am solo la sëñ Mouhamadul Fadil nettali na ne na ñoom de am na benn bi sëñ bi woo leen kenn ku nekk li nga yor ci xasida ne la nga indi ko kenn ku nekk la nga yor ci say gaal nga wax lépp indi ko mu xool ko sant leen lool ne leen nag na ngeen ko fonk bu baax ndax kuñ dugal ci bàmmeel dañuy soppali ko ay jëmm di la wéttali ci sa bàmmeel fonk leen ko bu baax a baax moom bu ko daan netti nee ah, bu da naka aka muy tay ba ma génne li ma yor xam ne booba mu baree léegi booba ak tasaaroon kon loolu lu am solo la euh, xam naa comme damay bañ a guddal ndax yeneen kii waaye rek ci gàttal daal ñu xam ne sëriñ bi dëxëj na ci lu bari xasida yi itam def na ko ñaari xaaj ginnaaw ba mu ko defee yu xam-xam yi ak yu yu kii defaat na ko itam yoo xam ne ñetti xaaj la mooy li ci géej gi li mu def ci géej gi ak li mu def lu jiitu géej gi ak ginnaaw géej gi nee na nag li jiitu géej gi nee na moom yàlla nangu ko te ba muy wax loola defe naa ne ca ceyeen la woon li ci biir géej gi diggam ak boroomam la li ci ginnaaw géej gi nag la wax ne lu ci waay bëgg wuti ko foofu noonu la ko noonu la ko leerale waaye am na fu mu waxaat ne yaa man jamii xidami taqabbala nga xam ne kon léppam léegi ginnaaw bi yàlla nangu na ko loolu lépp ay marxala lay doon tolluwaay te moom ak ñàkk a dongulam bokkul ak ñàkk a ak keneen damay faral di misaal léeg-léeg ci gaa ñi mën a leen fi mu ne nii boo demoon Amérique euh, léeg-léeg bagages yi ñu jëfandikoo ñoom ba noppi nga xam ne dañ ko ku génneeb salon boo xam ne noppi na ca ba génne ko dangay gis ñu jël ko di ko indi fi di ko jaayaat nga xam ne moom ñoom seen lu màggat <clears throat> ak ñun suñu lu màggat bokkul kon lu ñu nangulul sëñ bi ak lu ñu nangulul keneen noonu la deme gis nga yi ci géej gi jiitu géej gi <clears throat> nga gis ni ñu ci def yu bare bari xam nañ ci dara waaw yoo xam ne sax mbir àdduna da ko ci da ko ci faj ak di ko ci def yoo xam ne kon loolu ak ñàkk ak ñàngul nangul ak keneen yu ginnaaw géej gi itam moom itam moom boo ko dee xool moo ëpp ndax yi ci yi jiitu géej gi <coughs> bu ci nekk am nga rakk boo ci tudd rek fi ne nii wayaat na ko bi mu ñëwee loolu kon moom ak ñàkk a nangulam bokkul ak ñàkk a nangul ak keneen waaye daal ala kulli alin ñu gën a góorgóorlu baax gën a fonk xasaayit xam ne bari gi bari nii kat wa ab firnde la ci rek ne moom dana dem ba jamono sox soxla ko ndax yu bari ci yi gis ni fi ne jamonoy mag ñi amul woon yenn yi feeñul woon yenn yi gisuñu ko woon waaye bil xikma al ilaahiya lu demee ba jamono gën a lëndëm ñu gën a soxla leer xasida yu ñu gisutoon di génn loo xam ne day mel ni ñoom ñooy génn seen bopp day mel ni ñax muy sax daal loolu programme am la waaw loolu nag ñu gën ci sant yàlla ñu gën cee góor góorlu gën koo sellal gën cee jàpp bu baax a baax xam ne li muy def ci nit moom sëñ bee ko waajal waajal koy rawatina ci jamono juñ toll ñu gën ko góorgóorlu lu baax xam ne bi euh, ma koy wax sëñ Cheikh Touré mi léegi bi ma fi mujjee nga xam ne sëñ Salim Touré booba mm, mm, fatoogul ni mu def nii ci mujj gi ñuy waxtaan euh, la tax sax ma man koo nettali da koy nettali fii ci mbooloo waaw waaw booba euh, daf ne ma gis naa sëriñ Touba jaxran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ma nag li tax ma gis ko nee na ma booba li ma daan jàng ci xasida dafa bari lool lool lool lool lool waaw loolu nag kon waree na ne rek xasida aw yoon la woo xam ne mënees na ci àgg fu sori waaw kon daal ci gàttal ñu ngi tënk foofu naaw xëj na am na yeneen yu war a kiyaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi mbooloo yëpp.